daarul asan njaay murit saadix la maa waxati yàllaa ko tànnal mu bëggu baax te bokk fu baax newoon ki cig baax ba dem cig baax dëggal maati rafet na jikko te tànnub judd bokk fu rëy feeñul ci askan wu ñuy musloo ko xeebaate njëree di maamam sëtum maam dem ba njaay njaay man la Serigne Mame Dame Ndiaye fas yéene ànd ak yéen ci premier numéro daayira en ligne ngir dugg ci waxtaan woo xam ne dañ ci ànd ak sunu invité bu ko defee rek ñu jox ko mu nuyoo euh, Serigne Cheikh Diop. Serigne Mame Dame Ndiaye maa ngi lay delloo ab nuyoo akum ziar ci fii ñu invité muy site Mouride Info noonu ñu rafetlu bu baax. dalal gi ñu fi dalal ki aduna nak moy Cheikh Diop taif jité suñu section wilaya jeune bu ndam nek membre secrétariat wilaya jeune nekkaat membre secrétariat ci bureau fédéral. Serigne Cheikh Diop ci nuyo bu jotal bi nga xam nuyo nga ko mbokki téléspectateur mu ngi point info kon ñu commencé sunu jataay and ko Serigne Cheikh Diop kon ñu ko waxee Serigne Cheikh Diop sunu njëlbeenu tomb muy laaj bi. ñu ngi koy jëmale ci lan Ndaan Ndiaye ci laaj bu am solo boobu daayira mooy mbooloo mu ànd àndandoo boole seeni xalaat boole seeni doole di jaamu yàlla def sàppe ci gannaaw sëñ Tuubaa ci roy yonent bi sallallahu alayhi wa sallama boole seen lépp lu ñu am ci àddina ngir mana a delluwaat ci seen borom te buñu ñu ci yalla suñu borom it am ngeeramum nga xamné ne daayira deug deug laaj bi nga laaj dafa xut xut bop buñ ko topé ci yonnati sallallahu alayhi wasallam la tambalé won te lolou da gën a leer ci biñ ko suñu jambar ji andilé ndax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ak yonnati yi ya ko jiitu woon ku ci ma sa ñëw jamono yaak ñanga nga jamonante bo xolé mission bañ yoron mission daayira la ndax andando nek mbolo and wétal yalla diko jaamu ba delu wat yalla rek kon daayira maanaa dëgg-dëgg li nga laaj mooy mbooloo mu ànd di jaamu yàlla ak liggéey ba mën a sàmm seen ngor sàmm diine ji ba delluwaat suñu borom loolu mooy dëgg-dëgg daayira. jërëjëf sëriñ Cheikh Diop ci tontu bu am solo boobu nga xam ni indi nga ko ci hmm. ci ñi nga xam ne ñooy dégg danañ xam kon lan mooy daayira. Hmm. ci ab tënk. Hmm. waaye sëriñ Cheikh Diop ñu bëggoon a xam rek. daayira. kañ la ko sëriñ Cheikh indi <laughs> ak yan jamono la woon sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacké jamono bi muy andi daayira booba way juróom Cheikh Amadou Moustapha Karim booba mi ngi jamono di xalifa sëñ Tuubaa moom Moodu sëriñ Cheikh njëkk andi daayira mu tuddoon muhibbiina fii xidmati xayril aalamiina ñu bëggante soppante di liggéeyal ngeen ji mbindéef ñu dox ab diir mu mel na am na jafe-jafe na mu ko bëggee woon amewu ko noonu mu soppiwaat ko defaat daayira bopp da koo tudde diiwaanul muridiina muy daayira bi lëkkale kuréelu murid yépp loola itam mu def ko ci nekkuk sëñ Mourou Moustapha ba daayira boobee bi ñu demee ba 1944 màggal gi sëñ Modou mu joon a màggal soo xoolee defoon na fi bureau boo nga xam ne bureau bu am solo la ndax duñ ci mën a lim lépp xëy na waaye loolu boo ko déggee da nga xam ne kon daayira bañ ko créer yàgg na ndax magal googu moom seigne Modou mujj magal wax ne su fi fekkate duma ma wootewaat màggal gi nonu la koy bàyyi ñu koy màggale noona waaye loolee sëñ Cheikh Taloon ba nag ni sax soko xolon objectif yoonu murid yii bu ndon dox ci nonu ba nag ni itam leg yenn jafé jafé yi ñuy yoon wi dana sempi ku ta daayira di rek moo koy sempi ndax dafa defoon président général seigne Modou mustapha vice président général seigne Fallou Mbacke addu ci ne ñoom tamit Fallou seigne Abdoulahi Mbacke borom dër bi. sëñ Abdoul Ahad Mbacke sëriñ Salif Mbacke sëñ Chouaïbou Mbacke ñu ñëpp di ay leeri sëriñ Touba mu def général aareen sëñ Touba sëñ Hamsatu Jaxate addu sëñ Mat Lamin Jóob Dagana membre d'honneur sëñ Mbacke Bousso sëñ Moutala Mbacke sëñ Ibra Mbacke Ndar sëñ Abdou Samad Mbacke moom sëñ Touba sëñ seex Balla Mbacke sañ Issa Diène sëñ Ahmadou Bousso sëñ Madlo Dagana sañ Abdoul Khadir Mbacke directeur général honoraire pèlerinage la dox la aju ca doxum màggal mu ko di wajuru sëñ Mountakha ñi directeur général représentant accréditeur ki représenté woon Cheikh Moustapha ci terrain bi ba noppi di wax ci kàddoom moo doon sëñ Cheikh Amadou Mbaye Gaynde mu bindoon lii di taawam ba moo bindoon bureau bii adjoint directeur général actif ki ñu toll sëñ Cheikh tam actif moo nekkoon sëñ Mbacke Madina sëñ Modou Baara taawam sëñ Baara sëñ Abdou Aziz Baara Mbacke sëñ Abdoul Karim Mbacke sëñ bu jóob ñoom nit yi àddina yi sax amoon nañ ci ay poste ba ci micro central bi sëñ Mor Jooja Fall moo ko yoroon. loola lépp nga xam ne ay nit ñu ñu xam ci yoon wi di ñu ñu xamit ci këri diine yu siiw rawatina murit gi ak ñoo xam ne bokk nañ ci buur yi ñoo ñëpp bokkoon nañ ci màggal ko sëñ Cheikh jox leen ci ay poste de responsabilité ci nekku mag ñi ak waajuram yooyu yëpp. jërëjëf sëñ Cheikh mel na ne mbokk yi nga xam ne ñooy ànd ak ñoom. Mhm. ci murit point info yaakaar naa kàddu gi leer na nañ. waaye li nga indi ci euh, bureau bi nga xam ne mooy bureau bu njëkk bi. Mhm. waaye rek dañuy daal di indi foofu benn laaj rek. Mhm. muy kon gis nañ ne. Mhm. yoon yi nga xam ne mooy yoonu murit. Mhm. ginnaaw bi ñu ko sayxul xadim taxawalee. mel na ne système bi wala doxalin bi nga xam ne. gis ne dana gën a mën a organiser wu. Sëriñ bi mu ñëwee système bi mu doon doxe moom ñi mu jamono teeloon la woon donte nag tuddiwuñ ko woon noona ndax sëñ Tuubaa dafa ñaan boroomam ba tàyyi ci ay mbindam soo demee rawatina ci té téere bi ñuy wax Nuuru Daarayni ñaan na ca boroomam ne ko na nga ma may mbooloo moo nga xam ne dañuy ànd di def lu baax te nekk mbooloo wani xeb jamaa la si tafarraxaa baynal xiyaari karaman wal tufrixaa bayni wa bayni kulli jaalibin ilaa xayri daaka wal tutayib lil ilaa sëñ Tuubaa dafa ñaan foofu ne ko yow suñu maa ngi lay ñaan nga dajaleel ma mbooleem la tasaaroo woon ci diggante gaa yi baax yi ma jiitu woon ci sag tab te nga tàqale sama diggante nag ak lépp luy jur lu dul sa ngërëm maa lépp loon du mayee ngërëmal yàlla nag ma ko dàqal man Cheikhul Khadim waaye ña ma jiitu woon itam lépp luñ fi bàyyi woon tamu tasaaroo te tàqali ko na may ma dajalewaat leen kon loola kon da ci dégg ne kon foofa la sëñ Tuubaa kon tàmbale woon ñaan mbooloo muy daayira loolu itam am na système mu ko doon doxee ndax daara yi mu defoon doon ci tarbiya man ñi ku mel ne sëñ Daaru Xasan ñoom Maam Cheikh Ibra ñun ñëpp loola formule lu daayira la woon ndax dajale mbooloo defar leen buñ fa jógee tataan ciy tund ñu dem defaraat tund wa ba ñu defaroo ñëpp mën delluwaat yàlla seen borom am ngërëmal yàlla loolee ku ne xam ne système la boobu sëñ Touba moom la doon doxe moo mag ñi defar ci ay junni junni ñu ñu defaraat ay millions yi nit ba nit ñu baax ñi ba nit ñi mujj a ñëw loolee yàlla dogal mu ragalaat accès ci ñun bañ di ci doxe ñii ñu ci doxe ba sëñ Cheikh gën koo yaatal leer na nañ ñi ci ñi nga xam ne mhm. ñoo doon déglu waxtaan wi mhm. nga leeral ci système bi nga xam ne moom lañuy moom la daayira di doxe mhm. lëkkale ko ak yoon wi sëñ bëggoon nañoo xam tamit loolu yi lépp bi nga ko tuddee daayira moom nii ci yan texte la lay lay doxee ndax am na ay texte yu muy doxe wala ci yan texte lay doxee daayira mi ngi dox ci texte yu wóor rawati nag bi sëñ Cheikh Amadou Mbacke Gaynde Fatma andi moom ci texte yu leer la ko andi ndax Serigne Cheikh bi muy sos fédération bi jamono boobu dafa fekkoon ay association yu bari doon judd ci réew mi daayira nag association la waaye association yooyee moom du woon ay daayira yeneen lañ doon soxla ñoom jamono wala foo Sédar Senghor moo fi nekk ña doon wut ay association sëñ Cheikh doon lijjantiloo ay kayit sëñ Cheikh nag ne comme moom mën naa lijjanti këyitu boppam te du ko bokk léegi ñee te du ko yàq lii mu bëgg a fondé kon day dem France gën a yilif fa ñëpp di lijjante mu lijjante fa ay kayitam xanaa kayit yu mu njëkk a mooy li ñu wax récépissé nga xam ne day daal di taxaw wan la ne kii li mu bëgg def da koy teg ci moom anam yu leer naññi mu lijjati ab récépissé ñu laaj ko lan mooy récépissé mu ne daal daal maanaam daal ñu ngi mel ne nit ku nekk ci am réew di ca dox ñu ne ko faaw nga am aw carte d'identité boo xam ne boo doxee ba dajee ku la koy laaj nga man ko ko woon moo tax suñu Cheikh nag mu lay ko ab ci numéro 22. deux mille wala deux cent quatre vingt deux muy deux mille deux cent quatre vingt deux kon loola arjumaa yu leer la ba nga ni moo fa nekk mu laltaay ko ci kaw la loi du premier juillet mille neuf cent soixante nga xam ni bi tubaab bi libéré sëñ Tuubaa loola bokkoon na ca sëñ Cheikh jël mboolem teg ko ca loi boobee nga xam ne lañ la ca mën a waxal rek mooy dernière natt bi tubaab bi defoon sëñ bi am ca problème dama koy gàttare waaye lu gudd la am nañ lépp waaye temps bee tax waaye ba. demee ba mu jafe-jafe ñu ne sëñ Tuubaa yow waxal loo bëgg léegi ñu def ko ba ci nga ñibbi sax sëñ Tuubaa ne leen lenn képp laa bëgg ñu bàyyi sama ñoñ sama fekkeek saagu wute ñuy def seeni jaamu yàlla bu leen kenn bundu xataal ci dara tubaab bi laaj ne ko ñuy sa ñooñ sëñ Tuubaa ne leen ku ngeen seen mooy rokon di julli rek sama ñooñ la bokk sëñ Cheikh na bi muy keree mbooloo mii nag ca kaw loi boobee la ko teg moo tax kenn mënu ko bundu xataal dara jamono bi ñu fii coup d'état jamonoy Senghor ñoom Moustapha Lo ñoom ak waxukaay ci laa nekk ndaje yi bari dañ ko feete doon am na jamono kenn ñi mu daje ci réew mi sëñ Cheikh daayiraam bi dañoo doon daje te la ko maye loolu mooy lii nga laaj texte yu leer nañ këyit yu mu amoon ba nëgën am na yeneen i texte yu ñu ko wutal muy statut ak règlement intérieur xëy na su ma la ko doon mën a misaal institut dama koy jàppee ne mooy jëmmi nit règlement intérieur mooy garde fou yi nga xam ne nit ki ci dox du ko mën a romb du ko bët du ko mbëkk di jàll danaa nocc rek ci niñ ko ko rëddale ba tey rek ñu dellusiwaat ci mbirum mel na ne fédération bi nga xam ne mooy fédération euh, bii nu nekk mhm. ci texte yi nga doon tudd mhm. ci fédération boobu ci lay dox mhm. waaye bëggoon nañu nga leeral ñu rek texte yooyu nga tudd léegi ci ban date la ko Serigne Cheikh jot ci récépissé bi Serigne Cheikh bi muy jot récépissé bi wax nañ ne soixante soixante six soixante sept am na ñu wax loolu am ñu wax soixante cinq soixante six waaye soixante cinq soixante six bi moom mooy li gën a existé kon jamono boobu ci la jot récépissé boobu bi mu ko ci jotee 1975 ci la njëkk a organisé congrès waaye njëkk loolu daayira nag bi ko sëñ Cheikh moom di sosaat ci bu mujj bii nag ndax wax naa fi léegi muhib bii na la njëkk sos defaat diiwaan ba mu ci jógee ne mu indiwaat ittihaadu at baaxil xadiim li taawuni wa tamasuk bi diinil xawim muy fédération regroupement religieux et culturel de disciple de Cheikh Ahmadou Bamba loolu mooy wantur mooy mbooloo mi yëngu ci mbirum diine ak xam-xam te dajale taalibe Cheikh Ahmadou Bamba yëpp kon sëñ Cheikh Modou waa Daaru Xudoos doomu wala ak ay njabootam ku yaakaar sëñ Tuubaa rek sëñ Cheikh boo na la ci liggéey bii loolu ne kon buñ ko déggee noonu te gën koo yaatal kon liggéey bi ñëpp ci war a tàbbisi loolu nag ba mu ko defee ba mu koy digle njaareem la dem bisub dimanche 9 septembre 1965 mu dajale mbooloo mi. wax leen ni ba fi Cheikh Moustapha wàccee ab liggéey ak léegi ñaata at la kenn nax wala woo ko xam ko ñu ne tekk mu ne diirum ñaar fukki at la mu ne diirum ñaar fukki at yooyu ku ci xam sama njëriñ bi nag jublu mag ñi ne tekk mu ne leen liggéey sëñ Moustapha moom lu ci desoon ma ko doon àggale sama njëriñ bi nag jublu mooy li tax ma woo leen tey mooy daayira daal ne daayira mii nag ci yàlla la jóge jaar ci Rasulullah sallallahu alayhi wasallam jaar ci sëñ Touba kon mooy li ma waxoon ne kon mission fi ñoo ñu fi jaaroon ñëpp mission daayira xam kon am na question boo xoolee nu mu jaare ci yàlla nu mu jaare ci yoon nu mu jaare ci sëñ Tuubaa ndax booy wax buñ la laaj war ngaa laaj andi firnde yu leer kon loolu noonu la ko defee waaye dem na ba wax ne la képp ku ci bokk jënd ci aw carte dees na bind saw tur ma bind sama tur ca wet ga ku ko ci deful nag deesu bind saw tur nga bind sama tur ku ci jëndu carte dinaa ñaan suñu borom li nga bëgg àdduna ku ci mën a ñaan suñu borom ba nga am li nga bëgg àdduna ak àllaaxira waaye maam daam la gën a yéeme la mu daanelee discours ba. képp ku ci nekk di jëndu carte ba sa faatu jot ak ku mën a doon sëb sëriñ nee na boo faatoo ma teg la ci loxo sëñ Moussa te xanaa kon ma wàcc engagement boobu yi nag moom laa yëgagut kenn ku ko engagé woo noonu ci mbir moom kon loolu doyoon na ci waaye wax na ne képp ku ne ci daayira bi di yàq bu leen ko wax dara am na ñu ko yor duñ ko bàyyi te jàppuñu ko suñ ko jàppee duñ ko bàyyi te rëyuñu ko suñ ko duñ bàyyi te lëkkuñu ko wala na ci date yooyu nga xam ne joxe nga ko fi muy 1965 66. Mhm. mu doon loo xam mbir mu ci mën a doon dafay sukkandikoo ci ay texte hmm. te kon leeral nga ne Serigne Cheikh ci texte yi ci la doxalee ab liggéeyam hmm. ëllëg fu àdduna mën a toll texte yi di mën a contrôler li nga xam ne mooy loolu hmm. kon ci biir loolu muy ab yokkute boo xam ne gis nañ ko ci biir fédération boobu noonu ndax mën nga noo leeral maanaam ci biir yokkute boobu mooy li ñuy tuddi estance yi ak ci yenn ak lan mooy jubluwaay ba taxoon Serigne Mbacke ak maam Ndaam ci laaj boobu yokkuwaay bi am na ci instance yi ndax ba bi sëñ Cheikh nekk dañoo defoon rek daayira sëñ Cheikh limité ko ci daayira mooy kuréel gi gën a tuuti ci yu mbooloo mi mu wax ne mooy lu dajale toll ci vingt cinq personnes nga xam ne soo amul vingt cinq moom amagoo ab dayira waaye nag sëñ Mouhamed bi mu ñëwee ci xam-xamam ba moom it mu gis ni mag ñi kat léegi ñi ngi wàññiku seen doole yi mi ngi jeex kon ndaw ñii di gone yi faaw mag ñi ron leen ci seenu suuf jàngal leen liggéey bi ba ñu xam liggéey bi ci la sëñ Mbàkke nag ne na kon nañu kere benn structure bu tudd wilaaya ci jamono Cheikh Abdou Fatah Cheikh fa Fatah nag daal di koy def waxtaan ci ak sëñ Mohamed mu rafet lu ko ñu tënkoon ko ci gone gi doogu juddu am benn weer ci euh, exemple ba fanweeri at ak juróom kooku wilaaya lay bokk waaye soo xasee am nag 36 ans jëm kaw. dootoo bokk ci wilaaya dangay dem ca mag ña muy adulte bi ci ay coow amee na moom soppat ñu ñëw si Abdou Fatah mu ne léegi choix la amal 35 ans bu neexee bokk ci adulte yi amal 50 ans bu neexee bokk ci jeunes yi léegi rek yaay seet choix la ñuy def nag ba yàgg ñu gën koo yaatalaat bi ñu defee lee wilaaya xam ne wilaaya mooy boole ay sous section yi daayira wilaaya seen ci ab section wala ay sous section yi wilaaya femme yu bokk benn gox wala sax mën nañ ko bañ a bokk waaye nañ benn dëkk. bu ñu leen formé ñu tudd comité directeur jeune ñee tudd comité directeur femme ñee doon ay adulte yu bokk ñoom it ay sous section mu leen boolee ñuy comité directeur adulte xëy na su ñu leen boolee léegi mu doog a nekk nag ab section kon stage yooyu dañ ko gën a yokk jeune ba nag dana def réunion bureau muy ndaje mi gën a tuuti nga jóge ci dem ci réunion quartier jóge ci dem comité directeur ba dem ci secrétariat ba ñëw ci conseil fédéral ba ñëw ci bureau fédéral ba ñëw ci congrès kon ci ñu jeexal ci laaj yooyu rek hmm. dañuy laaj rek hmm. maanaam diggante la daayira bi hmm. ba fédération bi ci wan yoon benn structure lay lay lay jaar ndax daayira bi am na droit wax ak direct fédération bi wala euh, daa am feneen fu muy jaar sëñ Cheikh lépp lu muy def da ko organiser ci organisation bu aw yoon moo tax dafa waxoon ba mu ko sosee ne la tàmbalee ci sunu borom ba ci kilifa yu baax yii soo làmbee seen diggante nañ doon doxe soo ko làmbee ci lii ma sos da ngay fekk loola di doxe noonu waaye waa adduna tamit ni ñu tëralee seen i mbir soo ko làmbee ci daayira da ngay fekk ñoom it ñuy doxee noonu sëñ Cheikh bi daayira amoo droit jóg rek directement dem waxee ak waa fédération bi ndax daayira bu fekkee da ngaa bokk ci li ñuy wax daayira ay jeunes bi wilaay kere yoon li ñuy wax ay gone nga xam da bokk ci wilaay jeunes ya lépp looy wax ca instance jeune ba nga am droit dem waxee ko ca. sa bu fekkee am membre nga day daayira ba nga bokk wilaaya ba nga bokk par exemple man mii dëkk Taïf bokk ci wilaaya Ndaam tey su ma su fekkee am na lu ñu fay wax man na jiite euh, daayira ba kooku du romb dem direct ñëw fii ci kaw ci fédéral di wax ak ñoom day ñëw wax ak man la bëgg a wax man ca wilaaya Ndaam boobee mu bokk waaye may loolee du ko yanu romb waa Taïf indi ko fii ci kaw ci fédération bi may damay dem ci wilaaya jeunes yi ci Ablaye ba ma ma jiite wax fa la suñu waa daayira wax. ñoom laay ba ñoom dañ ko yéen a fii ñu war nañ koo jooytu ca section ba tag ko jox section ba bu section bi di ñëw fii nag andil ñu ko ci ci fédération bi kon dañ ko war a toftale bam agsi foofu. ci question bi nga xam ne tamit moom lañ lay laajaat mu jëm ci fédération bi yan xew-xew lay am maanaam yan xew-xew la fédération bi am ci li nga xam ne mooy euh, aw doxalinam. bu dee daayira yi ci suuf ñoom danañ di amal ay màggal ak i gàmmu waaye nag seeni ndaje it danañ di amal ay réunion ak i comité directeur waaye nag ak i comité exécutif waaye nag boo ñëwee ba ci instance bi gën a mag foofu danañ fi gis ñuy amal ndaje mu ñuy wax conseil fédéral conseil fédéral lii danañ amal meneen ndaje mu ñuy wax congrès xam ne moom la ñuy waajal nii conseil fédéral boobu nag loolu itam dana dem seen ndaje kon am na li ñuy wax li ma ko waxoon léegi réunion bureau ca quartier waaye am na comité directeur. waaye am na itam secrétariat réunion secrétariat mën nañ wax ne wilaya des jeunes am nañu secrétariat wilaya des femmes am nañu sec réunion secrétariat adulte waaye am na itam réunion section xam ne section ba ñooy réunion am na it réunion bureau fédéral waaye am na it congrès congrès moom nag bu ñu ci duggee dinañ gën a leeral xay na liñ ci xam suñ kam talaay kàttan rek ci question bu mujj boobu. kon ñu ñëw ci question bi nga xam ne moo jëm ci diggante le tudd nga ko congrès conseil fédéraux bëggoon nañ ñu leer nga leeral ñu conseil fédéraux ci yan at lañ ci yan date lañ koy def ak congrès tamit mhm. lan mooy congrès ak lan mooy doxaliinu congrès dama njëkk ñëw ci bi nga mujjee muy congrès congrès dañoo wax ni jataay yi fédération bi am mooy jataay bi gën a kowe ci jataay yi fédération bi di daje jataay la boo nga xam ne itam juróomi at yi nekk suñu kanam xam ne fédération bi moom la bëgg a doxe foofa lañ koy xalaate ñu juróomi at nii lañ bëgg fédération bi doxe ko lépp loo nga xam ne dëkkooruñ ci ne maanaam wóoru ne doxe waxuma sax ñu koy niir waaye dañ ko du tudd dañ koy génne ca réunion ya ñu def ci guddi gi ba nga xam ne sax kenn du xam ne loolu waroon na faa mën a ñëw nga xam ne daal daal jotaale boo xam ne daal ci la ñuy saxale ci la ñuy dàqe li nga xam ne moom la fi daal war a doxe juróomi at yi nga xam ni moo nekk ci kanamam jataay ba itam ay proposition la yoo xam ne ci suuf lay jóge ñu di ko nas di ko segg ba mu agsi foofa foofa nag lañ koy saxale wala foofa lañ koy dàqe xane membre ba nekk ci daayira quartier donte bokkut ca congrès wala bokkut ca membre yi fédéraux te lépp di benn am na droit amub xalaat yóbbante ko daayira ba mu bokk wala ma xool commission ba nga xam ne xalaat ba am fa la jëm mu yóbbante ko waa commission booba te loolee ñañ ko yóbbante dañoo war am droit andi ko xam ne daal bu ma la déggee daal congrès daal ci gàttal kon réunion bu mag la doo xëy na tubaab la woo nga xam ne Serigne Cheikh ko andi ci biir doo xëy na Mouride xam ne tubaab ba jógee bitim réew ci réew ya gën a sori su ñëwoon fii nga jox ko plan directif bi fédération Serigne Cheikh bii di congrès tubaab ba amul lu mu dindi amul lu mu ciy soppi ndax ñoom bu ñu doon congrès noonu lañ koy defee réew yi gën a développé ci àddina itam bu ñu wootee noonu lañ koy defee. fédération bii di congrès tam dafa amee ay daayira ay sous section ak i section léegi nag section yi section bu ne la nga jaay ci ay carte ca ngay amee ñu lay teewal ci conseil fédéral bi ci la ñuy tànn ay congressiste mooy ñi lay teewal ci congrès bi section bu ne buy tànn ay conseil am conseil fédéral da koy tànn ca sous section ba muy comme directeur village jeune ba su fekkee ay daayira jeune la seeni conseil fédéral dañ koy tànne ca wilaya jeune ya maanaam ca daay ca daayira ya bu dee wilaaye femme la moom it ci daayira femme am la koy tànne bu dee addit moom it ci daayira additam la koy tànne bu ko defee nag ñu seen tànn addit tànn leen femme tànn leen nag ñooñu la section sàngam wóolu ñuy ay conseil fédéral war koo teewal ñooñu itam bu ñu ñëwee xalaat yi yéen ñu indi du seen xalaat yi bopp xalaat yi leen section ba jox moom la ñu war inte défendre ko défendre ko loolu nag mooy lan waroo indi xalaat wax ne bu ñu laajee ne la ca nangam doo ca mën a tontu la ngay indi nag da nga a xam ne bu ñu la laajee wala lu tax nga indi xalaat walla nangam war nga ñu ko mën a leeralal conseil fédéral yooyu nag wax nañ ne danañ soxla lu amul sax danañ soxla mooy am juróom benn junni ma maanaam délégué yoo xam ne ñoo war a ñëw defal loolu loolu nag ko nga xam ne kon mbooloo mu bëree bëri la conseil fédéraux bi nag wax nañ ne dana doon 170 membres bu ñu former bureau bi ñooñu xam ne ci la ñu war a former bureau boo nga xam ne wax nañ ne dana doon 75 membres ñu jëlaat ci fukk yoo nga xam ne sëriñ bi wax nañ ne moo koy cocktail boppam mu nekk bureau quatre waaye nag conseil fédéral moom cent quatre vingt onze membres ndax mooy ëpp doole ba nga xam ne bu ñuy bëggee doxal loo xam ne jubluwu leen ñoom danañ ko mën a tëri danañ ko mën a dindi sañ nañ koo teggi ndax ñoo ëpp doole bureau boobu conseil fédéral moom la laajoon ni luy seen rôle tamit bokk na ci juróomi at yi ñu tënk ne nii lañ bëgg a doxe at mu jàll mu ne ñoom war nañoo dajaloo ne at mi jàll kat cinq ans yi newoon ci lañ bëgg dox at mi jàll doxagoon nañ ci nangam ji rëdd ko wéyalaat ci la ci des bu beneen at jàllaatee ñu def noona bu beneen at jàllaate ñu def noonu ba keroog ñuy juróomi at yi mat ñu war a defaat congrès xam ne loolu dana tax kon maanaam ñoom ñooy ñii sàmm liñ waxoon ñoo koy contrôler maanaam ba xam fuñ ci toll luñ ci def ak luñ ci defagut. xanaa kon rek laaj bi nga xam ne mooy laaj bu mujj bi. Mm-hmm. ndax euh, dañuy jox di daje. Mm-hmm. mbokk yi nga xam ne ñooy topp seen site murid point info. Mm-hmm. ndax lii lu ñu jukkee la ci géej rek. waaye danañ ko àggale incha allah ndax temps bi. Euh, ñu bëggoon rek nga hmm. ñëwal ñu ci soññee yi nga xam ne moom ngay indi diggante la liñ doon waxtaane ci wàllu dayra ak ci congrès ak ci ñi ñi war a def congrès bi hmm. su ko defee nga soññil ñu hmm. tàggatoo waale congrès wax nañ sax mën nañ koo tënk ci cinq ans waaye nañ ñu demee ba ci biir ñu gis ne am na ay rëq-rëq yu dugg ci li ñu tëroon te munta xaar juróomi at yi mat la ëpp ca mbooloo muñ dajaloo ne war nañoo congrès wax nañ ne war nañoo mën a bàyyiwaat cinq ans yooyu dajalowaat def congrès boo nga xam ne extraordinaire lay tudd ngir mën a jubbanti rëq-rëq yooyee ak njuumte yooyee ci kaw nag nee bu doon mbooloo ma di juróom ñett ñoo jël ñu laaj ko su boobaa dañ koy defaat duñ ci xaar cinq ans yooyee sa laaj mujj nag mooy maa ngi leen di sant bu baax di sant sëñ Mbacke Diagne nii ci liggéey bu rafet bii nga xam ne yombut di ko gërëm bu baax di sant yow itam di soññ nit ñi bu baax ci ñu xam ne daayira liggéeyu yàlla la daayira dajaloo rek naan kafe joxe sew ñaar fukk rek dal di coow xaxaloo ñibbi daayira dañ faa war a dajaloo di jàng alxuraan di jàng xasida di ñaanal ña ca bokkoon te jiitu ji bu noppee waxtaanee nu suñu adduna di jege dajaloo suñu alal dimbalante te yàlla tax kon maa ngi soññ ñëpp ñu waaj congrès bu baax rawatina ñi ci bokk ak ñi ko bëgg a julli ñi ko bëgg a seetaan si kër sëñ Touba lañ koy defee ci dimanche yi xam ne fa la ñuy lire résolution générale yi mën nga faa amee xam-xam bu gën a leer bi ñuy wax ndax ñu ma ëpp xam-xam rek ñoo fa nekk te la ñuy def lépp bu sëñ Cheikh ko tënkoon muy loo xam ne te teguwu ci daanukat kon ñoo ngi soon ñi ñëpp ñu waaj ko ci yar ak teggin te doxal ko ci xam-xame te moytu daanukat gi nga xam ne sa maas gi dañ ciy dox ba mu dinu yàqal lu bëree bëri te rikk waaye sa maas dañoo gis ñu leen tane ci liggéey bi nañ cey na lool ngir jëm yàlla kon foofu rek laay wàccee sama kàddu leen sant di ñaanal sëñ Modou Mountakha sëñ Abdourahmane sëñ Mokhtar ak jullit yëpp suñu borom guddal suñu fan nangal suñu jaamu yàlla ak ñi seetaan yëpp ci àddina si. mbokk yi nga xam ne ñoom lañ àndaloon ci seen émission. Hmm. Daïra en ligne di seen premier numéro ñu ànd ko Serigne Cheikh Mbacke Diop dëkk ba section Taïf comme ni mu ko tuddee mel na ne liñ soxla woon ci jataay bi am nañ ko ci bu baax baax ndax leeral nañu cosaanu Daïra ak lan mooy doxaliinu Daïra. daayira bii nga xam ne mooy fédération bi yan texte ak wala yan doxalin la ko Serigne Cheikh tëral leeral nañu ko. Hmm. waaye leeral nañu tamit événement yi nga xam ne mooy am ci euh, texte boobu noonu. du hmm. ci conseil fédéral ak congrès mu ngay sant bu baax a baax di jox di daje rek mbokki téléspectateurs yi nga xam ne ñooy suivre seen sit mourides point info saa su ne di di wax rek ne incha allah thème bi euh, liñ ci war indi lépp des na. dañu continuer ak yéen ci yeneen i numéro waaye nag temps moo moo moo toll foofu incha allah kon di leen jox dig daje ba yeneen jamono kon lii moo nekkoon seen première numéro incha allah ci beneen semaine danañ àndaate ak yéen ci seen deuxième numéro euh, wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatu gëm daarul asan njaay murid saadix la maa waxati yàllaa ko tànnal mu bëggu baax te bokk fu baax newoon ki cig baax ba dem cig baax dëggal maati rafet na jikko te tànnub juddu bokk fuure yi feeñul ci askan wu ñuy musloo ko xeebaate njëree di maamam sëtum maam dem ba njaay njaay